salaamaaleykum Sénégal maa ngi di siyaay ka su nekk ma ngi jox sa wàccuwaay eh, dama bëgg ñu waxtaan benn affaire ba gàtt vidéo ba gàtt gàtt rek eh, pour ma dalal ñenn ci xale patriote yi eh, maanaam ci côté gis ngeen ñi nga xamante ne ñooy gouvernement bi billaahi wallahi watallaahi ñooñu gën a nekk ci pression xaw ma na xam ngeen loolu gaa yi ñoo ñu gën a nekk ci pression nelawatuñu bay yendoor wallahi tallahi ak lu ñuy def nii yëpp arrestation yi ni muy bëri nangam nii nangam ne la wallahi tallahi ñoo ñu gën nekk ci pression te jàpp bi lu mu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri wàññiwul dara dara dara dara dara ci Pastef waaw pour ngeen xam loolu te la ma ko yàggee wax euh, gis ngeen li suñu kanam xam nga ñii six mois moo leen fi dese ñoom ñi ngay jéem a wax di dissoudre Pastef te ñoom six mois moo leen fi dese est-ce que yéen dégg ngeen wax gi ñu ne dañuy jéem a dissoudre Pastef te ñoom six mois moo leen fi dese waaw ce que veut dire que six mois six mois yi ñëw élection yi ñëw APR dootul nekkati dootuñu jiite ci réew mi. waaw ba àddina tukki nag après jeexal na tàkk donc nag ñoom ñooñu ñun waxu waxuñu dissoudre rek mais dañ leen di faire disparaître waaw Pastef day disparaître APR waaw loolu moom xam leen que te ngeen reste focus te ngeen calme ñaanal Ousmane Sonko bu baax a baax a baax a baax a baax